asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokkum jullit bi démb waxtaanoon naa ak yow ci njariñ ak xéewal gi nga xam ne moo nekk ci ki seeti mbokkum jullitam bu feebar mu nekk xéewal gu bari lool yiw wu bari lool wu yaatu waaye noonu la sunu borom tabaraka wa taala mel yàlla dafa bari yërmande lool ci jaam yi noonu la yàlla mel dafa bari yërmande ci jaam yi yàlla ku baax la waaye tey jii nag incha allah dama lay waxal beneen xadis boo xam ni noonu la mel bu bari yiw lool te jàpp naa ne sax bi yee gën a bari nu déglu ko bu baax xam nga démb dama ne la ko dem seeti sa mbokkum jullit bu feebar am nga lii ak lii ci ne ko yonent bi jàngalee tey nag ku dem seeti sa mbokkum jullit rekk la soit mu feebar wala mu bañ feebar mu nekk ci jafe-jafe wala mu bañ caa nekk waaye seet sa mbokkum jullit rekk la lu déglu bu baax yonent bi wax na ci lu rëy ci xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci abu hurayra muslim solo xadis bi abu hurayrata moo nettali mu ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn bis daf leen a nettali ni leen yonent bi moo nettali ni leen benn waaye dafa mas a jóge ci dëkkam dem di seeti beneen mbokkum jullitam ci ab dëkk suwaat këram mu dem beneen kër di ko seeti jullit nee na sunu borom yebal benn malaaka mu dajeek waa ji ci yoon bi di waxtaan ak waa ji ni ko yow waa ji fan nga jëm waa ji ni ko damay seeti sama benn mbokkum jullit ca kër gële wala ca dëkk ba bale malaaka mi ni ko ndax da nga fay dem ngir bor bu mu la ameel wala xéewal goo fa mën a jëli wala lu mu lay may nee na waa ji ne ko déedéet dama ko bëgg rek te yàlla tax di ko dem di seeti ji yonent bi ni malaaka mi daal di koy tontu ni ko yàlla sa borom moo ma yebal ci yow ni ma ni ma naa la xabaar ni moom yàlla bëgg na la comme ni nga bëggee sa mbokkum jullit bii ba di ko seeti allahu akbar loolu yonent bi ko nettali ngir waa jooju waaye nag bépp jullit la dafa valable ci bépp jullit boo xam ni danga jóge sa kër di dem di seeti sa mbokkum jullit te bëgg ko te yàlla dong tax kon li nga ciy dégg mbokkum jullit mooy yow mi bëgg sa mbokkum jullit te yàlla dong tax yàlla sunu borom dalay bëgg loolu yonent bi xabaar na ko ci xaddis bi ba ci topp mooy ñun nit ñi dañuy jëf ay jëf jàppee ko lu ndaw a ndaw a ndaw a sunu borom def ci yiw bu yaatu lool ba kenn du xam nu mu toll waaye noonu la sunu borom toll mbokkum jullit kon day mbokk maak yow nanuy fexe di bëgg sunuy mbokki jullit te yàlla dong tax ngir ñu am mbëggeelug sunu borom tabaraka wa taala kon lii mooy sama fàttalek yow tey saa booy jóge sa kër dem di seete sa mbokkum jullit na fekk nga bëgg ko te yàlla tax kon li nga ciy dégg mooy ku bëgg ab jullit yàlla bëgg la waaye nag ku bañ ab jullit ah loolu day na waar kon nanuy bëggante te yàlla tax sunu bëggee yàlla bëgg ñu lii mooy sunu fàttalik tey bokkum jullit yàlla na nu yàlla boole ci ña nga xam ni bu nu jëfee lu ndaw yàlla may leen tuyaaba ju baree baree baree bare te it yàlla na ko yàlla defal mboolem jullit